dinañ ci jëlee gain. très bien ah bu dee bu dee loolu am na. bu dee loolu am na opposition nañ ci jëlee gain man d' accord na. aywa merci beaucoup alors est ce que dina def loo xam ne opposition nañ ci gis seen bopp. Mamadou Fofana looloy la. Mamadou fanaa gis nañ ni bataaxal bi nga xamante ne euh, ñoom euh, les spoliés yooyu bind nañ ko président Macky Sall lim nañ ni ba limoon ne Ousmane Sonko da cee bokk am na coow bu fa bu fa bu fa juddu euh, ndax Ousmane Sonko moom dégg naa ne moom nee na bokk ci woon naka lu ci sa jàngat nak nga ko mën a jàngatee. man <clears throat> j'ai découvert ak ñëpp mhm. la réaction de. je peux de la personne d'Ousmane Sonko à travers un communiqué pour wane ne moom lépp li nga xam ne ne tey muy collectif bi nga xam ne nii ñoom ñoo tuddee seen bopp les def nañ ko ba bind président de la république pour parce que jàpp nañ ne am na pouvoir yépp pour mën a intervenir et voir comment interrompre le processus pour que ñu mën leen rétablir leurs droits bon man li ma gëm moom mooy opposition bi dañoo war di xàccandoo di dóorandoo e yu mel nii man damay jàpp ne day gën a néewal doole opposition ci moment bi nga xam ne soxlawu ko parce que moment bii nii lañu ñu gën a soxla moom mooy boole seen doole xàccandoo dóorandoo pour ñu amandoo gain de cause et d'autant plus que dans le collectif il y a un représentant je dis bien Moustapha Sarré ci boppam source ak ñeneen wax nañ ko moom ñu ngi ci biir collectif ba mm-hmm. donc buñ demee ba ci biir mu xaajaloo après ça pose problème et tey loolu noonu day gën a tax tey opposition bi boo leen waroon a mën a jox sax benn crédibilité wala mën leen a mën a bàyyi xel ci seeni combat mhm. moi je pense que day néew euh, pratiquement anéantir effort yi nga xam ne yépp ñu ngi koy def pour mën a dem ci li nga xam te ne nii c'est ce qu'on appelle peut-être euh, euh, la reprise justement du contrôle de parrainage te loolu foog naa ne li ci am solo na ñu di ciy bàyyi xel ñoom opposition bi ñuy xàccandoo di dóorandoo merci beaucoup Mamadou Fofana euh, di ngeen gën a yàttal ci waxtaan wi ci commentaire yi ci journal de huit heures Mame Mbaye Ndiaye kon nag quarante cinq jot na dama lay delloo léegi nuyu la sarkal la waa sënkam xàccandoo moo tax ñu yëg ci kaw bi moom la ñu def nii ayca kon ñu yegg ci kaw turbine bi. nee na ñu ndong ci kaw tey ndong ci kaw turbine bi. Mm-hmm. Bougane Gueye mm-hmm. njiital gëm sa bopp. moo yegg ci kaw turbine bi ndax élection présidentielle la ñu dëgmal coow li bari na ci lool. Mm-hmm. nee nañ daanaka une semaine moo ci des. nee nañu ci une semaine moom ci lu mu wax. ci diiru une semaine ak fichier bu baax bi mën nañ saafara problème bi. Hmm? nee waxul benn yoon nee na bañ ma ko yóbbu samay wax waaye na nga yóbbu samay wax. <laughs> waaye waxul benn yoon nañu dàq élection yi. na ñu reporter élection yi nee na ma ko wax. li mu wax dafa leer nañu stoppé processus bi fu mu toll nii. waaw tëggaat li nga xam ne moo di euh, euh, euh, wàññu parrainage bi si ñii nga xam ne. Mhm. ay impacté lañu. Mhm. si lii nga xam ne moom la ñu dund ndax am na ay joyante gi ñu war a def si ay si ay parrainage loolu moo tax ñu téeree leen. Mhm. nee na si une semaine mën nañu régler loolu bu fekkee nag am nañu fichier bu baax bi. il est possible de reprendre le contrôle du parrainage avec le bon fichier en une semaine. Mhm. la leader de gëm sa bopp moom ma wax la li waaye nag nee na waxuma fi report boo leen yóbbu samay wax yóbbu leen li ma wax waaye bu kenn jël ay wax togg ko ba mu jekk ne man maa ko wax te waxuma joobal double nationalité bi wax ji bari na ci lool nag. Mhm. fu mu nekk nii waa France ñoom ñoo àbb xeex bi <laughs> xeexal ko Karim sa Wade xamal ko ne nag abatoo nationalité française démb la ñu ko génne ci ab communiqué comment la France à sauvé donc la candidature de Karim Meïssa Wade kon ña nga ca waaye xeex bi nag mu ngay wéy fu mu nekk nii un combat perdu d'avance devant les sept sages yéen kaay béykat moo di recours yi nga xam ne dugal nañu ko. Mm-hmm. mooy recours yi nga xam ne bu ñu sukkandikoo ci yéen kaay mënees naa ñàkk ndax nee nañ duñ ci am ndam jamono joojee Fatou Thiam te mu ngay defanteex ki nga xam ne mooy Karim euh, Meïssa Wade nee na mi ngi xaar ci conseil constitutionnel bi ñu wax li nga xam ne mooy li li war a ne. nañu respecte mbir yi rek bu fekkee da nga dugal ab euh, euh, ngir euh, sa nationalité daal di koy dindi. nañ ko teg ci yoon jamono joojee bu gàngee daan yi ci l'évidence ba tey mooy wax di dëggal ay kàddoom nee na ma suma ma wax report donc moom d'accordul ci ñu dàq élection yi. Hmm. élection yi le 25 en tout cas li ñu bëgg moo di ñu def nañu daan def xëy sangu ba. set solo ba jekk. dem tànn ki sànnil ki la neex. waaw delluwaat sa kër toog ci jàmm. Hmm. ñu xaar ngoon bàcc bàccal di tàmbali. kuy bàcc xamuñu. li ci kanam raw liggéey la waa ji waxoon bàcc bàccal. ah. du doon ah, en tout cas dina am kuy bàcc moom. kan mooy bàcc bàccal li ci kanam raw liggéey. Bougane Gueye Dany nee na dàqum élection moom d' accord ca. d' accord deux minutes pour lire l' essentiel. de l' mhm. le je t'aime. waaw moi non plus. de Sonko ki ndax nag li waral coow li moo di. collectif bu euh, euh, recalé yi. waaw dañu bindaat lettre njiitu réew mi président Macky Sall yóbbante ko bataaxal. waaw bataaxal boobee Ousmane Sonko ñoom it ñoom ñu génn benn communiqué. nee ñu nañu leen sa kaccat <laughs> yéguñu tinuñu bokkuñu buñ leen ci boole Ousmane Sonko nee bu ñu jëlee ci turam. ah jaayoo. moo wax de waaye tontu am na. Ah. tontu am na. na waar tontu am na. bi ngi nii ci suuf soix laata ñu ciy ñëwaat suuf soix ne kon lu waral coow li ah. lu waral coow li lu ko waral kon waa ji nga xam ne moo di Moustapha Sarré lu mu doon def keroog bi ñuy def point de presse wala bi ñu doon wax ba prise parole ana lu mu fa doon def boo war a mën a jël parole suuf soix yemu sa de Le directeur de l'école du parti PASTEF a bel bien si, euh, siégé à la réunion au cours de laquelle le collectif des recalés a d'écrire une correspondance à Macky Sall ma nga fa woon toog na kan la fa toogal ñu laaj ko moom waa source a woo ko téléphone ndax journaliste nag mhm. da ngay def recoupement mhm. loolu la si moo jàngale mhm. da ngay woote xam ndax li ñoo dëgg la wala déet <laughs> ba ko source a woowee moom Moustapha Sarré nee na aha kay maa signé man résolution bi waa kon war a coow li boo signé kay. est-ce que déggoon na ak euh, Ousmane balaa muy signé. waaw loolu seen potum biir la. waaw ah, justement. waaye moom bu fa teewee teewu la fa boppam. de moom la fa teewal. teew lu fa boppam de. ça c'est vrai ah. Hmm. xanaa kon wax ji jéem a. jeex na ah, taaj. très bien. sa candidature validée sur la base de sa déclaration d'honneur. Hmm. ô combien suspecte Karim Wade nous a eu. suuf saa moo ko wax en tout cas jamono joojee nag gaañaa ngay defante de dinañ si ñëw ci ñu mu am Karim se joue de tout le monde mu ngi nii se joue de tout le monde ñëpp ñëpp Walf Quotidien moom moo ko wax Mounirou Sy constitutionnaliste nee na le conseil constitutionnel lii ngeen yaakaar ne kon dafa nekk nii di gëstu ba mu xóotaax naan naan kii du bokkat ne dox si yooyu sax conseil constitutionnel Mounirou Sy mooy wax de moom consi constitutionnaliste nee na le conseil n'est pas dans cette logique de vérification. Mhm. Thierno Assane Sall nag fu mu nekk nii. fu mu ko teg euh, le du PDS mu ngay tiire ci Thierno Assane Sall. waaw Thierno waaw Thierno Assane Sall dé dé démb. waaw kañ lañ ko tiiree ca plateau bi. non fi nii. benn site bu siiw Ahmed Aïdara tiir gravement sur Thierno Assane Sall. si loolu. ñooñu ñooñu kay lañ wax ne sa waay moom moo recours ñëpp. yenn site si loolu la ñuy dund El Hadj. wala ay vues. Amadou Ba recours ñëpp bi. moo recours ñëpp moo kalaame ñëpp pour bu kenn bokk. mais mais li nga wax noonu Amadou Ba moo kalaame ñëpp. Mm. mais buñ sukkandikoo ci Karim li mu wax. parce que nee na même taas. bu fekkee dafa dóor ci Karim Meïssa Wade. waaw nee na Amadou Ba moo nekk ci ginnaaw. moo nekk ci suuf Karim moo wax de. Karim moo ko wax kon daal Thierno Alassane Sall Amadou ne moo wax de Amadou <laughs> ñëpp. moo dóor ñëpp sur kii Thierno Alassane Sall. <laughs> Gabriel Attal officialise donc la désision le 6 janvier. Le Conseil constitutionnel a reçu les déclarations sur l'honneur en décembre. Attaqué par TAS Karim Ndekete wane na am panque gu nekk ci moom nee na nit ki bu la dëgg dëkkee di màtt di màtt di màtt. Mm. jékki-jékki signe. Mm. moo xam ne am ngay bëñ. waa mën nga koo màtt yaa ko màtt. Mm-hmm. Karim Mesawaat loolu la def démb. xamal ne nag kii nga xam ne mooy Thierno Alassane Sall. waaw pànkaa ngi ci man. Mm-hmm. il faut ma ñamal la tuuti nga xam ne am naa tuuti pànk. ba pare toog ak en attendant. maître mooy baayam nag. maître Abdoulaye Wade ndikki Coro ah. Sarr. <laughs> mooy baayam boo déggee ndikki Coro Sarr maanaam Coro fii la ci réew mi. te kéwél du dëpp est-ce que ndikki Coro Sarr mën ngaa wax mm-hmm. ci réew mi. kéwél du tëb doom jëbët kéwél. du tëb doom jëbët kéwél dañuy tëb. évolué gii. ndonte di bërëbu. waaye gënu laa bëgg mais bërëbu. dëkk bii. le point actuel. fu mu nekk coow am na nag ci opposition bi fu mu nekk ni présidentielle 2024. Mhm. la demande donc d'une élection inclusive malmenée par le combat de Thierno Alassane Sall contre Karim Meïssa wat ndax lii nag mën naa tax kon bokk gi nga xam ne nee nañu ñëpp bokk. élection inclusive ñoo am ci boppam kon Karim euh, ki nga xam ne moo ceer naa Alassane Sall di tiire. ci Karim Meïssa Wade kon nag bokk gi daanaka ngay tàmbalee rax. des membre du collectif des recalés lancés par Mimi Touré Bougane Gueye Dany intrigué donc par le refus de Sonko de se solidariser à l'initiative sollicitant donc du chef de l'État la reprise du contrôle des parrainages kii suuf soo tontu na ko sànq. Hmm. bu fekkee yëgul it am ndawam ma nga ca woon te moom signé na dem lu fa woon boppam donc que faisait alors le représentant de Sonko dans le collectif suuf su aadaat dina koy tontu Karim Wade Wade Karim Meïssa Wade décoche donc ses premières flèches. Mhm. war na am na tuuti pànk contre Amadou Ba nee na que yëpp xam nañ na xam nañ ko yaa nekk ci ginnaaw Thierno Assane la grande question est ce que Amadou Ba redouterait la candidature de Karim Meïssa Wade. si toutefois am na benn analyse politique bu ko wax de. c'est ça la grande question. dafa ragal Karim si 12 heures bi. le témoin yéen a kaay Tass Karim Amadou à couteau tiré ñetti ñaa ngi nii ñetti doomi pendanaar yi ñetti doomi pendanaar yaa ngi nii donte communiqué bu gouvernement bu France nga génn na di xam ne na kon Karim Meïssa Wade léegi renoncé na si candidat si nationalité française am waaye terewul de gaa yaa ngi koy dóori kurpañ ba léegi moom it mu ngay delloo kurpañ bi hélas du xew géejawaay ah waaw lu fa xew la ville de Guédiawaye et l'entrepreneur Ibrahima Ndaw au cœur du Nouran rocambolesque affaire lu xew xam nga suñu daaf bi hmm. Hmm. Babacar Gueye la tudd daaw Ibrahima Ndaw mii moo gagné woon marché wu ay kaye ñoomin seen bañ defal ko virement ren nag comme que ñoom dañoo tàmm ay copier coller di copier di coller après jël compte ki gagné ren copier coller mu copier coller compte daaw ba fi defoon xaalis mu defaat ko fa ren la Ibrahima Ndaw laa moo ñu saisir sax nañu mais ville de waaye daf ñu defal vi daf ma defal virement gars yi ne ko kon daaf bi dafa juum ñu ne kon le deux la ñuy reprendre dinañ dem jëliwaat xaalis bi delloo ko trésor comme ça ñu viré ko ki nga xam ni moo gañ a marché bi mhm. waa ji le deux fajar mu dem taxaw fa ak ay chèque récupérer xaalis bi daw gendarme yi di ko wër di ko wër di ko wër di ko wër ba jàpp ba démb la procédure bi jeex bi muy jeex nag libération bindagul lii. Ah. moo tax waroon nañoo laaj nag ville de Guédiawaye. ba noppi mu joxe vingt cinq millions. joxe na ko démb médiation pénale mm-hmm. ne nag léegi dina joxe trois tranches. Mm-hmm. xaalis bi di des. Mm-hmm. pour ñu defar ko. liberté provisoire. provisoire démb ci guddi lay doog a ñibbi këram. très bien. pour muy leer. kon leer waaye benn waaye moo ne ca mairie ba rek. sonal nit ñi lii nii yëpp site internet yi ko doon bind ak passé waa jooju moom moo ko joxe. <laughs> waa jooju nag li nga ko bëgg a wax xam nga mooy lan. Eh. na muñ. du Alioune Sall de. non damay préciser ne du Alioune Sall. parce que boo nee waay. boo préciser ñu jël ko waaw xel yëpp yaakaar ne Alioune Sall. la cité kooku dee am na koo xam ne may nañu jàmm sax nag boo bëggee dégg dëgg. Hmm. le maire sortant la. ba mu mbir ma jeexee ba léegi jaaru fa xooluñu. deful dara mais waaja sonal na nit ñi sonal koo xam ne. Eh. nan nangu ne borom bi lii la dogal Ahmed Aïdara gagné nañu. aywa merci beaucoup. mu ngoog leeral yaa ngoog. waaw kay ñu continuer kii war a wax wax na monsieur le maire. très bien leer na nañ leer na nañ libération ñëw ci Thierno Assane Sall Karim Meïssa Wade mhm. la guerre totale la ko tuddee. visé par une réclamation Karim Meïssa Wade accuse Amadou Ba de tirer les ficelles et exige donc un de renonciation daté de ce janvier parce que ñu bari looloo coow dañ ne ndax def na ko ca délai ba parce que nag. Euh, euh, euh, validation li nga xam ne moom mooy renonciation après euh, euh, euh, bu mu jàllee ci liste provisoire bi la. ndax mi ngi ci dale ba am déet ndax ba mu ko lancé comme maître Abdoulaye Tine moo xoon ba mu ko lancé la la la mbir yi jeex en tout cas Thierno Alassane Sall moom teggul tànkam nee na il demeure constant que Karim Wade a été retenu sur la liste provisoire sans remplir une exigence majeure découlant de la Constitution. kon nag ba tey coow laa nga ca des na yëngal waaye coow li coow li moo di suñu juróom-ñaari Kocc Barma yii la sept sages. yi mm. vingt la lañuy xaar fu mu nekk nii. samedi. ñu génne liste bu baax non le mooy dernier délai. pour génne liste bu baax. mën na génn sax suba. foofu ba dëgg foofu ba dëgg waaw mais mais mooy deadline mooy mooy mooy mooy mooy dernier délai. mooy impasse. waaw daj dëpp gi. mën na nekk suba mën na nekk ginnaaw suba. donc teel a leen jeudi. vendredi et samedi vendredi moo si après samedi ñu xam ne kon ñii ñooy mbër yi. ñi war a bëri. donc ñii nga xam ne ñooy wax nañu stoppé euh, procédure bi. est-ce qu'ils vont être écoutés. donc est-ce que après bu euh, euh, buñ génnee liste bi lañ la ñuy xool la la seen la seen requête peut-être ñu ñu mën ko nangu. mais Simon Pierre Faye. voilà est-ce que du fii la fii la Macky Sall mënoon jël dogal stoppé lépp. bu fekkee ni moom déglu na leen ci seen bataxal euh, yi ah, waaw bu dee déglu na leen peut-être mais mais est-ce que est-ce que est-ce que mën na ci dara instant bi ah, ndax moom kay mooy mbir mi toll quarante moins de quarante huit heures xam nga nag comme que dañ na moom ah, président bi ñu ko bindee ba tey yàgg na tuuti tamit du barki démb xam nga lañ ko bindee dama ne moins de quarante huit heures lu lu luy jot jot na li li wolof di wax luy jot jot na ginnaaw dee donc bu fekkee da day tontu positivement li nga xam ne mooy requête bi moment bi rek la ko mën a def. ah bu weesee bañ publier liste bi dara mën a dina am. Ah. sept cent bu ñu waxee ba pare génne liste bi. en tout cas ñoom ci boppam les recalés li ñu bëgg xam nañ ko moo di ñu stoppé li nga xam ne moo di procédure bi tëggaat li nga xam ne moom moo di élection yi ma pas élection yi wàññum parrainage bi. wàññum parrainage su ko defee nag ñi mën a bokk bokk réew mi quotidien daal di si dikk nee na la foire aux contestations wax na dëgg nag de parce que fu mu ne yi sakkan na lool. ndax la wax la la polémique la polémique entre Thierno Assane Sall. et Karim Meïssa Wade loin de s'estomper. question autour du décret portant donc l'échéance de la nationalité française de Karim Meïssa ca bi boo ñu xaar de. lu Oja wax. ana Oja tey am nañ ko. am nañ ko kay. anam ngi ca kanam tuuti ci mi la def ca kanam may fecc. yaa nga ca woon nga doon dakasa yéen tamit nag yéen tamit nag man man fii laay liggéeyee. mu def la dakasa. nga sax bu baax Macky Sall nag seet si na nuyu nga waxtaan ngeen tamit. ba pare wax na ah? nag recrutement bi dañ bàyyi xel waa Géej. Ah. du tee di ba nga ñëw la lendemain delloowaat nga ko fa ca bu te mi ngi wax ne ne Aliou Sall da ko may jàmm. waaw maire sortant may da ko jàmm waaw rafet na am na bu ko ñëwee en temps de guerre et en temps de paix. dakasa ba ak yére bi. mais ba ak. waaw aywa ñu woyee Mame Mbaye. Odia bu tey lu mu wax. Odia lu mu wax Thierno Assane moo def ay frontière am. frontière non frontière. waaw kii bëgg na franchir frontière yi moo di kii di Karim Meïssa Wade. Mhm. nee na Sénégal rek. la mhm. woote. Mhm. ka candidat Karim 2024 àndaale na sëri ca Qatar. ku nekk ngi toog di xaar Karim 2024 la woote mais mon cher euh, euh, tas taset. je le fais à visage découvert kon nëbbatuwuma damay jéggi sa frontière nii nga koy gis. très bien loolu la Thierno euh, lool la Karim Meïssa Wade tontu ki nga xam ne. moo di Thierno Alassane merci beaucoup Mame Mbaye lu gën a fës ci boppu xibaar yi moom la ñuy xaaral. les candidats recalés noonu la ñu tudd ñu ngay woy ba léegi di dox si lu dakkal li nga xam ne moom mooy fi ñu toll euh, ci euh, processus bi ngir ñu mën a tëggaat wàññum parrainage yi ña nga demoon seeti ji démb société civile bi.